honorable euh, doguma la sax sànq euh, yaa ngi wax euh, di joxe histoire de yi nga xam ne da nga koy gis un peu partout à travers le monde gis neen Europe aux États-Unis même sax seen président yi leen toppee loolu mais est-ce que ñoom seen politique ñu ngi koy defee ak politique réewu Sénégal c'est la même chose est-ce que Ousmane jàppul ne kii di président Macky Sall dafa bëgg a jaarale fii nga xam ne moom la jaarale ak kii nga xam ne mooy Abdou kii Karim Wade ak kii nga xam ne mooy Ababacar Sall aussi est-ce nekkul aussi réponse politique diagnostic bu mu teg par rapport à a affaire aussi li tubaab di wax légitime suspicion maanaam Ousmane Sonko am na droit ñaaw njort jàpp ne Macky Sall bëgg naa utiliser justice pour sànk ko am na ci droit xamul da jaar-jaaru Sénégal la jiitu na Macky Sall gis nga euh, rey nit ci ci yoon Senghor a ko def donc il est dans son rôle aussi. non non xaaral maa ngi dama la expliquer lu war a mën a justifier mu ñaaw njort am te kon pour le moment gisaguma benn preuve bu ma wan Macky Sall mi ngi ci biir parce que pour le moment il faut pas qu'on l'oublie Adji Sarr moo porté plainte Ousmane Sonko c'est-à-dire ah, li nga xam ne mooy les faits li am li nga xam ne moo am mooy plainte bi Adji Sarr porté plainte Ousmane Sonko leneen li ci des man gisagu ma mais dama la wax ne am nañu sañ-sañ ñoom ñaaw njort parce que 1962 président Senghor. mais est-ce que nekk lu nekk ci gannaaw Adji Sarr moo tax ñu ñaaw njom. waaw mais xam ah, nga xam nga yow jabaati nga jëli ko ak kat euh, ah, katam ah, aussi le jour des faits aussi. xam nga yow xam nga mhm. mooy bëtu askan mooy nopp askan. autrement lu amut waru caa wax lu amut waru caa wax maanaam lu mu ne dul baaraam rek la sañ a wax su ci waxul bu su waxul bu ne wut dul baaraam wax leneen boobaa mi ngi waxee xalaatam. wala muy waxee njot journaliste du waxee xalaat du waxee njot kon encore une fois le fait. li am ça ce sont les faits. waxaar non non non les faits est la plainte que Ousmane Sonko a que nu mu tuddati Adji Sarr a porté contre Ousmane Sonko. léegi la 4-4 bu ko jël si. gisuma ci loolu xaw ma ci dara loolu amu ci benn xam-xam man li ma xam mooy porté nañ plainte Ousmane Sonko loolu man xam naa ko c' est fait pour gis nga boo ma tegaloon kaamil ne ma waatal ndax Ousmane Sonko ba yore ni ko wala damay waat ne violé wu ko parce que rafet naa njort ci moom ci loolu waaye nag le fait mooy moom lañ porte plainte ci affaire u viol li ma sànq ne la le fait que mu sañee ñaaw njort ci ne dañ ko bëgg utiliser dañu bëgg utiliser pour sànq am na ci droit parce loolu dafa yàgg Sénégal 1962 président Senghor dafa jiiñ am Mamadou Diané daf ko bëggoon def coup d'état ci la ko jaar ba daane ko tëj ko ci kaso bi te ba ñu histoire dem na ba ñëpp xam ne Mamadou Dia mosul waaj coup d'état parce que moom moo yoroon état bi kon Senghor la mu doon wax nit ñi ci jamono jooju du dëkk bu dee wàllu Macky Sall bi mu fi toogee léegi dañoo gis ay jëf yu mu jëf yoo xam ne mën naa tax ay adversaire am ñaaw njort ci ne day utiliser justice contre ñoom bu njëkk bi mu faloo ba toog dafa dekkal CREI yi CREI yi nag ne ñëpp ñu dégg mu ne of CREI yi li ko tax a jóg mooy xeex njublan gi waa PDS yore woon réew mi of nag mu ne li ko tax a jóg mooy di xeex njublan gu nekk ci ñi nga xam ne ñoom la àndal waaye li ñu seetlu vingt cinq personnes yi nga xam ne ñoom la CREI jëkk bëgg a topp kenn lañ ca seppi euh, sujet ko daan ko muy Karim Wade ña ca des kenn waxatu ci ñoom dara rawatina am na ci ñoo xam ne tey ñu ngi assemblée nationale yor fay responsabilité am na ci koo xam ne mi ngi ci euh, nabturati euh, gouvernement Macky Sall keneen ki ci des mooy Khalifa Sall mm-hmm. UGE topp UGE def na ci inspection jën ko détournement de deniers publics ñu jàpp ko moo ki nit ñoo xam ne ñoo doon liggéey ci maire de Dakar 2012 ak léegi même Khalifa Sall lañ fi jàpp ci maire te jàpp naa ne les 557 maires gëw ma ne Khalifa Sall rek moo ci def njublan li gën a garaaw du loolu mooy ña nga xam ne ñoom lañ bokkoon boole woon ak Khalifa Sall jàpp ñu doon liggéey maire Dakar ba ñu leen libéré kenn ku ne dañoo dem delloo la sa place ngay liggéey fa nga toogoon Khalifa Sall ñàkk na maire ñàkk député beneen bi ci def mooy dangay ngay dégg toujours président Macky Sall mu naan je vais réduire l'opposition a sa plus petite expression. Mm-hmm. xam nga kuy wax loolu ak ak yi ma la tuddal sànq maanaam ni Ousmane Sonko am na droit ñaaw jot ci ne xal waa ji daf ko bëgg a sànq beneen bi ci des bu yàggu rek dégg nañ président 31 décembre mu toog mu ne Sénégal am na ñoo xam ne kenn du leen jàpp ndax bu ñu la jàppee réew mi tàkk. Mm-hmm. koo xam ne da ngay xalaate noonu bu bu bu bu bu yëngalee justice bu justice yëngutoo da nga jàpp ne mën naa am dalaa bëgg sànq waaye loolu lépp ay ay foog la. waaye li nga xam ne moo ne kër këtt ne jonn muy la fait mooy que Adji Sarr di doomu Sénégal moo porté plainte Ousmane Sonko maintenant Sénégal dañoo fonk di baatub jigéen Sénégal dañoo fonk di baatub jigéen bi ñu mooy Sénégal dañu am complexe opposition dafay bari baatub jigéen ci viol ñaare bu jigéen bu ñu ko violé dañ naan dañ moo provoqué yëre yi mu soloon daa seere taatu bi daa rëy moo tax ñu ñu ko loolu nag conception bu Sénégal yi am ci jigéen dafa feeñ ci mbirum Adji Sarr mii beneen bi ci des mooy mbirum Adji Sarr dafa feeñal ne Sénégal ku fi amut yu bokk wala nga amul tur maanaam mën nga am jafe-jafe loolu mooy tax wala fi ñàkk doole doy nag tooñ parce que tey boo xoolee day mel ne Adji Sarr mu amut moom moomu moo jàkkaarloo Ousmane Sonko mu am ndey loolu daf feeñ loolu encore une jàpp naa ne du loo xam ne mooy gën parce que république li nga xam ne ci lay war a sukkandiku mooy mooy yoon yoon nag ñëpp a ci war a yem malheureusement yëpp yooyu feeñut ci diggant ci ni ñu war ni ñu traité Adji Sarr or Adji Sarr moom moom porte plainte ndax wax na dëgg wala wax dëgg ci tribunal moo ko war a leer Ousmane Sonko Ousmane Sonko ndax Adji Sarr wax na dëgg wala waxu dëgg kooku aussi tribunal rek moo ko mën a leer kon encore ko fois damaa jàpp ne bu nu li nu bu nu defoon ndànk lii wolof di wax danañ dal mooy bu dë bu coow bari dëgg reer maintenant nag yëf yi soo xoolee ñi nga xam ne dañ ciy wax ñaari te ànd ak Ousmane Sonko ñoom duñ ci duñ wax dëgg xamul tax mooy ñoom duñ wax ci mbir mi Ousmane Sonko ci Ousmane Sonko la ñuy wax ak baaxam ak ak gëm yàlla non débat bi déggul foofu débat bi mooy porté dañ ko porté plainte ndax liñ liñ ko wax moo ko def wala defu ko kooku tribunal moo ko mën na ñi nga xam ne aussi dañoo contre Macky Sall bu ñu wax dañuy jàpp ne moom moo ne ci ginnaaw te amul ku la mën a indil firnde ne loolu am na beneen jàngat bu ñu war a jàng jusqu'à présent benn nit déggagul Ousmane Sonko mu ne yow léewu ma ko waa léegi lu tax nit ñi ñoom bëgg ko bëgg koo ñoom raxas ba mu set te moom ci boppam raxas mais il n'a pas besoin de le dire doyen parce que déjà si conférence de presse bi sax mun nañu wax ne na gannaawam ba mu set ba tey ñu des si conférence conférence de presse Ousmane Sonko boobu nga xam ne euh, ñu mel ni yow dañoo jàpp ne dafa def appel à l'insurrection si fameuse fameuse phrase am boobu ne l'ultime le dernier combat wala l'ultime euh, combat est-ce que mun nañ ko reprocher euh, appel à l'insurrection parce que bu ñu gisee ne en aussi kii di président Macky Sall utilisé woon na ay mots yu demee loolu xaw ma ci dara xaw ma ndax daa def appel li ma jàpp mooy contradiction bu ne ci Ousmane mooy bi muy tàmbalee conférence de presse daf ne li tax ma def ko ci kër gi dama ko doon bañ a woote ci permanence ba parce que dañ doon bañ nit ñi ñëw daje fa. loolu moo ko wax ci bi muy tàmbalee conférence de presse bi muy jeexal ma woote nee na nit ñi fippu foofu foofu erreur de communication maanaam ndax daañ ko topp ci loolu loolu sama yónneeku ci man du ma du ma du ma magistrat du ma juge du ma sama yónneeku mais est-ce que bu ñu ko toppee ci loolu aussi euh, thèse du complot bi nga xam ne ñu farandoo appel euh, na wala waaw dafa nag yow nañu dëggal loolu aussi euh, rek ci les faits nañ jël siwaat ci rek ci les faits app def na appel wala deful appel yow laay laaj léegi maay laaj hmm, non man pour man deful appel lu kon ah, naa ci ginnaaw pour man <laughs> ginnaaw pour man la rek journaliste dama la wax ne du wax ne pour man la journaliste fee rek la war a wax. kon nañu wax ci leneen nañu wax leneen dama ne dama ne non dama ne non dama ne conférence de presse bi daf ko wax ci wolof wax ko ci français. lii ma non lii ma la wax léegi non lii ma la wax léegi non xaaral lii ma la wax lii bu fekkee déglu nga conférence de presse bi dégg nga ko. soo ko déglu dé déglu déggoo ko su fekkee déglu nga ko dégg ko ne sa euh, ni sa gis-gisu bopp la dama koy bàyyi yow. non non sama gis-gisu bopp si Ousmane Sonko lu mu wax si laay jugé. lu mu wax mën a poser question aussi. lu mu wax mais moo woowul nit ñi ne nañ ñëw jëngu c'est un combat mortel affaire bi bakkan la laaj ah moom moo woote loolu su ko waxul woon du ko wax man parce li wax damaa wax ca tàmbale ba daf ne du conférence de sama kër lañ ko def parce dañ doon bay mbooloo waaye soo bañee mbooloo mu daje tax nga def sa conférence de presse sa kër mais doo woo mbooloo mi ci suba sa nañ nañ jëg nañ jaay suñu bakkan mais est mbooloo boobu bu ñu ñëwoon saafante aussi ak ki nga xam ne mooy seen leader Ousmane Sonko te police aussi amul benn euh, provocation bu mu def wala benn agissement bu agressif bu mu def aussi jàmmaarloo dina am ce jour là aussi non non dafa cest dire que nit ñi ñëw këram daje fa moom moo ko moom moo ko moom moo ko jëkk a parce que moo ne day bañ a def conférence de presse bi te permanence parce kon warul nangu nit ñi daje këram di fa di fa saafonte benn ñaar dañoo toll ci jamono jox xam ne dañoo tere rassemblement te nag jàpp naa ne député lu ñu tere moo ci war na ko mooy. mais loolu c'est facile gis nañ ne a yokkee kii di président Macky Sall def tournée. ak mais c'est son problème man euh, ko dénoncé benn pont fii au niveau de Yoff. Macky Sall mhm. mars ak léegi. dem ma fi ngénte dem ma fi fenn julli collectif sax du ko def kon encore une jàpp naa ne guddi grand moom moo ne day bañ a def conférence de presse ci permanence am parce que day bañ coow day bañ mbooloo mi daje warul woon a këram wala même bu fekkente ne ñëw nañ mun leen dem leen ñibbi maintenant am na loo wax ci police jàpp naa ne maanaam ndiiraanu police ga ci xëy dem fa loolu aussi mën naa indi jafe-jafe je crois que très il aurait pu wax ak un un ancien candidat à la présidence gars yi yor nañ ko ordonné waroon nañ ko mën a wane ko président Ousmane vraiment su fekkee bëgg nga jàmm dañu bëgg xale yooyu ñëw sa kër nga wax leen ñu ñibbi mhm. su ko defee boobaa moom mu gën leen dem leen ñibbi jàmm rek fi xew mhm. ñu ne ko kenn jël la xale dañoo yaakaar nañ ko jël si alors que tout le monde savait duñ ko jël